auzu billahi min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah seydina muhammadin wa ala alihi ajmain mbokk jullit yi mbokk internet yëpp ñu ngi leen di kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen baal àq bu baax di leen baalu àq di leen ñaanal yàlla jàmm di ko sàkku ci yéen di leen ñaanal yàlla mucc ak mucc la di ko sàkku ci yéen bu baax a baax a baax di ñëwaat ak yéen ci seen chaîne bi nga xam ne mooy Coranique les grands secrets nga xam ne waxtu wu nekk ñu ngi ciy séddoo ak yéen yenn ci secret alquran xam ne dina yombal dunu doomu aadama te yewenal ay mbiram ci zaahir ak ci baatin tey nag dañoo ñëwoon ak yéen indi leen secret boo xam ne secret dëddale la maanaam yàgg nañoo dugal ay secret yo xam ne secret dëddale la waaye dañ doon bañ a wax ne maanaam dañ doon am luñ ci nëbbu maanaam di rafetal ak yooyu waaye secret bii ñu leen indi nag moom secret tàqale ñaari nit la waaw dañ koy wax mu leer secret tàqale ñaari nit maanaam dootuñ àndati ci àddina moom mooy secret bi ndax ko duñ leen ko nëbbu bëri na hmm. ñoo xam ne dañuy faral di oo te liñ ñuy wax boo xoolee hmm. niñ koy waxee dalay leer na kii lim lay wax dëgg la ci moom te mi ngi ci naqar ndaxte neexut nga nekk góor di ànd ak jigéen di ànd ak moom di jug di daanu ba dem ba bëgg a def farata ay mbokkam jël ko may ko keneen neexul boo waxee ñu ne la ñaar ñu yàlla seen say benn nañ ko ci aras waaye dafa am mbir yoo xam ne aajuwut ci mbiri yàlla mbiru or la mbiri wor la maanaam jékki yaa ngi góorgóorlu nekk góor di góorgóorlu amoo mbokk ku jigéen ki gis ko am ñu dugal ko ci loolu yoonul yàlla néew ci loolu doomu aadama moo jël moo jël décision wor la waaw wa nga nekk soxna di sëy ak sa borom kër di jug ak di daanu di jug ak di daanu mu jékki-jékki takk ñaareel munoo ko ko tere munoo ci dara ndax lislaam moo ko ko may waaye dangay gis ne ku jigéen kooku dafay ñëw ci biir kër gi dëddale la yow ak sa borom kër ba nga xam ne dootu leen defati na sa borom kër noonoo ak yow noonoo ak say mbokk noonoo ak say say doom ci koo xam ne yow ak sa borom kër am ngeen doom yu mag wala nga nekk ci béréb di liggéey nit fekk la fa gis teraanga gi am xañaanee ne loolu soxoree ko jug ba sa yow ak sa patron ni ngeen meloon melatu ko boole bi mu la boole woon ci mbiram yi lu muy def yëgal la ko da ciy génn loolu bu amee ni ngay def mooy taqale sa patron ak kooku noonu bu amee ni ngay def mooy taqale sa borom kër ak kooku noonu ni ngay def bu mooy lan mooy taqale ki nga xam ne moom nga bëgg ak ak ak soxnaam soosu waaw ndax doomu aadama fi mu ne dañu am ñoo xam ne dañuy oo ñu koy def ñu leen koy defaral di leen ko yónnee loolu léegoo léeg dañuy xat te nit ñi dañuy faral di au téléphone ci jamono boo xam ne dañuy faral di jàpp lool duñ mën di uyu ñëpp kon luñ bëgg mooy jox leen secret yi nga xam ne ku ko mën nga defal ko sa bopp. boo ko defalee sa bopp incha allahu sa digganteeg yow ki nga xam ne moom nga yow mi nga xam ne yow yaa def dëddale bi ñaar ñi nga dëddale dootuñ ànd ci àddina waaw dootuñ ànd ci àddina ñu xamal leen ko bu baax a baax a baax ndaxte dafa am mbir yoo xam ne ay nit dañuy oo ko wax ci mbir yoo xam ne daanaka li lay kii di wax mooy mm-hmm. li lay kii di wax benn la ci ay jafe-jafe fekkee jigéen ñi ne damaa nekkoon ak sama boroom kër waaye léegi daf maa beddeeku jublu beneen soxnaam bi nga xam ne moo fa mujj a ñëw léegoo léeg mat naa nekk ne yow mi nga xam ne yow lañ fekk si bu fekkee yaataloo bu fekkee uufoo ñëpp bu boobaa jafe-jafe yi yëpp sa kaw lay daanu waaye nag lu ci ëpp ñi nga xam ne ñoom lay mbir yi di dal dañuy bëgg uuf dañuy bëgg boole neexul nga am sa boroom kër ngeen ànd lu toll ci fanweeri at mu am ay doom yoo xam ne mu ëpp na ñaar fukki at jékki-jékki bandoone la jékki-jékki wàcc la yow ak sa njaboot. wa ilaa nga nekk ak jigéen di ànd ak moom di ndaxtaan ak moom ba yàlla bëgg def farata ay mbokkam jël ko may ko keneen. loolu rafetul ci gisin rafetul ci ci ci ci déggin secret bi nag incha allahu képp koo xam ne def nga ko kiñ ko def ñaar ñi ko def danañ mel ni xaj ak muus dootuñ mën a def dara ci àddina te seen diggante dootu amate ci àddina wa ilaa bi nga xam ne itam nit ñi dañ koy laaj da ngay am doom jur ko fa ko war a juree yar ko fa nga ko war a yaree mu am éducation bu baax a baax a baax nekk ci famille boo xam ne ñëpp leen nawloo mu jug ut ay àndandoo yoo xam ne àndandoo yu bon la fekkee góor la muy ànd ak ñoo xam ne dañuy sàcc dañuy tux dañuy naan nga tere tere mu bañ defal secret bii nga xool mu ñi nga xam ne ñoom boo ko def dootuñ àndati ci àddina wa ilaa nga am doom ju jigéen mu nekk fa mu judd fa war a juddoo yaru fa war a yaroo waaye day ànd ak ñoo xam ne mën nañoo soppi mbiram yi ndax boroom xam-xam yi dañuy wax ne nit ku bon buy ànd ak nit ku baax mi ngi mel ni xal ni muy wàllee safara këriñ noonu la gaawee moo ko raw sax xal wu xonq ni muy def këriñ soppi ko ba mel ni moom wala mu raw ko sax nit ku bon ni muy def nit ku baax noonu boobu moo ëpp waaw képp koo xam ne nag bëgg ngaa tàqali ñaari nit boo defaree secret bi incha allahu def ko ni ñu la waxee sa seen diggante dootu amaat waaw ndaxte comme ni ñu leen ko waxee dañuy faral di jàpp lool te duñ mën di di di di uyu ñëpp te léegoo-léeg nit ñi dañuy dañuy foog ne dañoo jafe wala dañoo xat te xatuñ dana nekk ci te jamono rek nekk ci te njaboot waaye nag képp koo xam ne déglu nga secret bi nga defal ko sa bopp incha allahu jëru sax nga ñuy oo mën nga koo defal sa bopp ndax secret bi jafe jafewul képp ku ko mën a defal sa bopp rek defar defar ko sa bopp jarul nga ñuy oo secret bi nag boo koy def da ngay jël aaya bi wa jaala kalimata allazina kafaru sufla moom ngay jël moom ngay jël nga bind ko lu toll ci soixante dix fois comme ni ngeen ko gisee nii soixante dix fois moom nga koy bind waaw soixante dix fois mooy juróom-ñaar fukki yoon soixante dix soo noppee miim yi ci nekk yëpp da koy ubbi miim yi ci nekk yëpp da nga koy ubbi nga dugal fa turu ki nga xam ne moom nga bëgg a ñaari ñi nga xam ne ñoom nga bëgg a tàqali ñoom nga fay defal seen tur mim ci nekk yëpp da nga koy ubbi soixante-dix fois nga koy bind ubbi mim yi benn mim rek moo nekk ci aaya bi wa jaala kalimata lazina kafaru benn mim kese moom moo ci nekk mim googu ngay ubbi boo ko ubbee nga dugal turu ki nga xam ne moom moo la gën a jege maanaam bu fekkee ne sa borom kër la turam ngay def ci bu fekkee ne sa doom la turam ngay def ci kaw ki la jaga a ngay def turam ci kaw def ki nga xamné mom nga bëgg na bëgg mu bayyi nga def turam ci suuf nga bind ko nga bind aya bi ba mat juróom ñaar fukk yoon 70 fois bo noppé nga tejj ko comme ni nga gisee gisee ni ak salatu ala nabi bi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman fayakun comme ni ngeen ko gisee ni bo noppé da ngay bind da ngay boolente li nga xamné manam mom moy bind mi yépp nga def ko ci so ci so nga koy def def ko ñetti xaaj maanaam dangay def bind mi ci soo def ci ndox bu nekkee saafara nga def ko ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi da nga ciy def juróom-ñaari doomi kaani moom nga ciy def nga gas ba mu xóot nga sotti ko ci suul ko juróom-ñaari doomi kaani moom ngay ut nga def ko ci xaaj bu njëkk bi nga gas ba mu xóot tuur ci saafara bi ak juróom-ñaari doomi kaani yi suul ko beneen xaaj bi dangay ut asib nga sotti ko ci nga sotti ci ñetti ñetti yoon maanaam fekkee ci gutt la nekk danga nga ciy sotti ñetti yoon boo noppee nga xool sën sën mooy foo xam ne maanaam tere la bu boo xam ne nit ñi dañ fay sotti sotti mbalit ak yu demeen nga tuur ko foofu beneen xaaj bu mujj bi ñetteele xaaj bi dangay ut lu toll ci juróom-ñaari puso juróom-ñaari puso moom ngay ut nga def ñaari ñetteeli xaaj bi ci kafteer wala bool boo xam ne di nga ci mën a tàngalee nga dugal juróom-ñaari puso yi ci biir boo noppee nga taal gas baxal ko ci ba mu bax bàyyi ko ci loo xam ne dana mat lu mu néew néew néew néew waxtu maanaam dangay ut loo xam ne nag dafay rëy bu ko def ci bool bu ndaw dangay ut loo xam ne dana rëy ba bax lu toll ci waxtu boo noppee incha allah nga wàccee ko ci tàng-tàng bi ni mu tàngee noonu bala moo sedd ni mu tàngee noonu moom tamit noonu nga ko jëlee nga gas ba mu xóot nga sotti ko ci biir mom ak li nga xamne manam mom moy pousse puso nga gas len sou len inshallah kep ko xamne def nga ko ñaar ñooñu nga xamne ñom la sen tour nek ci biir euh, xaatim bobu sen mbir dootul andati ci adina dootuñ jafati dara inshallah kep ko xamne man nga ko defal sa bop defal ko sa bop jarul nga ñi o kep ko xamne gis nga ne man am nga koko jox mu bindal lako ko ko mu bindal kep ko xamne bëgg nga ci ay leeral itam ci video bi wala yenn ci suñu vidéo mën ak ñun ci plus 221 77 286 38 79 ñi ngi sant ñi ngi gërëm ñi ngi leen di ñaan yàlla yàlla yàlla may ñu dégg ak topp yàlla yàlla musal leen mosal leen yàlla yàlla feesal seeni poos ak xajjina te feesal seeni xol ak yàlla asalaam